bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sariika lawo wasi wa ma lil waad li fiika yàllaaw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 كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنا dellu war war na la sant. nee war na laa sant. bu bi ngeen seetee li sëñ li liggéey. nee bi ngeen seetee li sëñ Afe liggéey. ngeen ñëw. ngeen ñëw. delloo delloo ko njukkal. delloo sëñ Afe njukkal. bëgg xam li mu liggéey. bëgg xam li mu liggéey. nemmiku njabootam. nemmiku ak njabootam. danañu bëgg. nee na dinañu bég njaboot gi bég nañu njaboot gi bég nañu may leen jottali loolu nee na mi ngi leen di jottali loolu di ko jottali suñ muntaxaa di leen xamal ne itam di leen xamal ne itam fi ngeen ngeen ñëw barab la boo xam ne la boo xam ni nekk ci mbóot li fi nekk ci mbóot ko wax nee na mënee su ta wax lépp nee na moom mënu ko wax nee li mu ci xam rek la ci mën a wax ak li mu ci dégg

saaku saaku la na naawal boo xam ne sax saaku la daal doon. di ak taalibe yi. di liggéey. nee na daana liggéey sax ba xiif. du gis lu mu lekk. mu dem ci jànj. rukk ko di ci xéewlu. nee na bu ci xéewloo ba dëgër. delluwaat ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nee na kooku nag ku gëpp taalibe. yaa ko xam. waaye moom xamul. moo moo tax. bi sëñ Tuubaa nekkee fii. daana jekki ba guddi jot. daana bàyyi ba suuf sedd. mu ànd ak ay taalibe. seet si sëñ Afe. te li muy wax ñëpp xam nañ ne sëñ Afe itam. sëñ Afe daana jekki ba guddi. mu yónnee woolu seen diggante. ku cay wax ku cay wax. wax tuuti rek. da cey barkeelu. da cey barkeelu. waaye mënoo caa wax lu ëpp dara. waaye xam naa ne bu ngeen demee ci gone yi. waaye. xam naa bu ngeen demee ci gone bu ngeen demee ci gone yi. dinañ leen mën a leeral. dinañ leen mën a leeral. lu bari loo xam ne lu bari loo xam ni. lu mu bàyyi la noonu. lu mel nii la lu mel nii la rek. lu mel nii rek. waaw gone yi nañ ko mën a wax. mais mi ngi leen di sant bu baax. ci liggéey bi. ak taxawaay bi. ak taxawaay bi. Euh, ngeen ñëwee daal. ak nii ngeen ñëwee daal. waaw li ñu ci métti rek. ne li ñu ci métti rek. mooy naaj wu tàng wi ngeen dox. mooy rek ko ci métti. waaye mi leen sant bu baax. di leen ko yàlla may. mbooleem ñun ñëpp. ngërëmul suñ Tuubaa rek la ñu wut. billaahi barke borom ci waa ji yëngu rek. ngërëmul suñ Tuubaa la ci sàkk kon mi ngi koy ñaanal. sëriñ ngeen santal ko sëriñ bi te xam ne mu ñu lu jul moom xam ne moom la moom am lii ñu am lii ñu am ñun moo ñu ko moom sëriñ bi moo ñu ko jox te lii nag te lii nag la am la nu am sëñaafe kenn ku ne la la yàlla may rek nga am ñun nag ginnaaw bu si ñaafe ci lan bokk mu delloo ñu si ñaafe ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal tubaarkal jërëjëf ñu tàllal loxo rek ñu noppee ku bëgg a gis néeg bi si dëkkoon mi ngi nii rek